ñun li ñu am ñu dolli si ba ren incha allah au moins cent tonnes ceeb ko joxe fii bii Médina ak leneen ak leneen loo xam ni euh, mënuma ko xayma day gudd. dañuy jàpp ni suukaru koor la ak ndimbal si Covid 19 xam ngeen ni ñun bi mbir mi tàmbalee ba léegi dañ ko def de façon méthodique première phase bi ñu njëkkoon def mooy ñu wut ay jumtukaay yu bëri jébbal ko daara yi. këru diine yi ak pénc yi loolu def nañ ko ba matal jën nañu ay gel jën nañu ay saabu jën nañ lépp jébbal ko penc yi daara yi ak këru diine yi ngir aar taalibe yi ngir aal population yi nga xam ne dañu nekk si ay difficulté loolu moo doon première phase bi tey nag dañu tàmbali deuxième phase bi lii ngeen gis nii c'est les premières livraisons yi nga xam ne ñu ngi koy jot fii suba ginnaaw suba dinañu continuer parce que nee naa suñu mbébét ren mooy vraiment joxe lu takku xale yi cotiser nañu ñun màjjal nañu lu ñu am ñu def si te incha allah dinañ joxe loo xam ni vraiment dina indi ndimbal si biir Médina donc loolu la ñu tàmbali tey bu si gox-goxaat yi si biir Médina dinañu wër distribuer ko xool population yi xam ni amuñu xàjjax seen nag ñun duñu xool rek ñu bokk suñu mouvement. képp koo xam ne yelloo na ko képp koo xam ne yaa ngi nekk si difficulté incha allah dinañ ñëw luñ la mën a jàppale ñu la xeeb nañ ko waaye defe naa dina mën a dolli si li nga xam ne ñu ngi koy xaar nag mu jóge si état bi parce que état bi Macky Sall si mbaaxam jébbal nañu ñun Médina plus de 9000 kits yoo xam ni dinañ ko distribuer biir Médina loole ñun dugg nañ suñu loxo dem nañ si biir commission yi joxe suñu ay personnes vulnérables di xaar nag.

ñun nag li nga xam ni ñoo ko moomal suñu bopp dinañ ko distribuer à partir de demain jox ko ñi nga xam ni vraiment yelloon nañ ko comme ni ma waxee encore une fois. nee naa nag xale yi jàmbaar lañu ak suñu mag ñi nekk si biir mouvement bi euh, màjjal nañu nit ñi cotiser nañu ba am à peu près dix millions loolu mënul jënd lii yëpp waaye li ñu am aussi dolli nañ ko si. li nga xam ne màjjal nañ ko suñu ay xarit dolli nañ ko si ba ngeen gis li ñuy nga xam ne mooy tàmbali te incha allah di ngeen gis leen.